Euh, kan Diallo Kan Diallo on va faire une petite présentation mm. ci moom ak euh, Bijou c'est un artiste boo xamante ni euh, ñu miin programme yu télévision Futur Média yéen a ngi gis ay woyam mu jàll souvent en boucle mais on est très ravi de le recevoir tey ci plateau Pape Cheikh moom na xale bu tuuti la ndax donc papa moo ngi dans la main <laughs> Cheikh pour présentation bu rapide rek papa mi ngi tudd Mbassouna moom nag euh, dafa ah, nekk voilà moo nekkoon manager bu Baaba Maal ah, et puis je pense que loolu sax moo ko inspiré ndaxte depuis bi mu amee cinq ans oh, bi mu amee cinq ans la commencé wooy nee na stylo la doon jël di ko def micro di toppandoo Baaba Maal ñoom Youssou Ndour ñoom euh, Omar Pène mais euh, wooy mi ngi ci dugg carrément carrément en 2010 ak benn frère am bu tudd Seydou Ba ñu créé le groupe Welma bi euh, signifier ton plaisir en pulaar nee na jàng na ba seconde pour def euh, formation en infographie ak montage du ñàkk mu servir la ci li ngay def mm-hmm. actuellement euh, seen premier single ñi ngi ko génnee en novembre 2015 et puis deuxième bi c'était tout récemment en janvier le 6 janvier précisément d'accord bienvenue sur le plateau maa ngi maa ngi nuyu maa ngi leen nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant. sa tonton yi fi toog. waaw waaw sama tonton dafa am problème sama mag yi sama yi tamit. tonton Mamadou waaw d' accord ba tey ba tey maa ngi maa ngi leen di nuyu di kontaan bu baax si seen invitation bi. Mhm. di di la remercier bu baax ci invitation bi toujours. Mhm. Euh, di wax ni kontaan naa loolu ci li ma teew. alors balaa ñu kontaan ak yow. lii jar na jar na ndaa daal de ah, ore fonde ore fonde gamaaji saare cikite Kayra Laaw Gamadi Saare. Moudour ah. ak seen dëkk Louga fan mooy seen dëkk. Ah, euh, euh, na ko sànq yaa ci musique bi ngay nekk xale parce que euh, defe naa da nga da ci culture diggante Baaba Maal ak sa papa defe naa Sénégal yëpp xam nañ ko kenn dootu ko weerante mais naka la déclic bi ñëwee ba nga ne yow il faut nga way bëgg. en waaw bon dafa nekk affaire bu naturel ah c'est moi loo xam ne. Euh, dafa naturel parce que vraiment man foog ma woon ni un jour dinaa dinaa nekk di di wéy nag comme ça. Mhm. Ah, ba nit ñi di ma ci xam et tout mhm, mhm, donc euh, loo xam ne la dafa naturel ñëw ci man. xam nga euh, depuis 2010 un an avant sama papa di décédé. Mhm. la la commencé la dugg carrément ci showbiz bi ak euh, mon frère ki nga xam ne moo nekk sama ginnaaw ni mhm. mooy Seydou. Mhm. Euh, bon ñu bari dañuy jaawale dañuy foog ne ñu ñaar ñu bokk ndey ak baay mais ay oh. xarit leen. Oh, ñu yàgg ànd voilà dañoo yàgg ànd. ñuy ànd dañuy dem ba niroo c'est le groupe Welma. donc voilà ñu ngi depuis boobu ba tey ñu ngi bay suñu waar suñu côté. mais dama la dégg fii ngay woy en pulaar est-ce que seen woy yëpp en ngeen koy def est-ce le fait que sa papa nekkoon euh, manager bu Baaba Maal moo la influencé ci côté boobu. waaw xam nga ni ku nekk day am tamit identité. Mhm. ah man euh, bon suis Haalpulaar. Mhm. tamit ñun dafa am fu ñu féetee. mais quand même mhm. euh, que on fait de la musique. waaw musique générale donc musique africaine fépp la ñuy même bu fekkee sax séeréer jar nañu woy séeréer sax dinañ woy séeréer. donc voilà on fait de la musique. depuis 2010 yaa ngi ci biir musique bi génnee nga ñaari single actuellement lan moo tax depuis 2010 ba léegi ci single nga yem album bi animu waa xam nga album euh, ñun dañu bañ tromper euh, sénégalais yi quand moo tax xam nga on a préféré jël suñu temps liggéey Mm-hmm. boobu ba tey moo tax euh, depuis 2010 ba tey ñu ngi ci showbiz bi mais jusqu'à présent kenn dégguñu ñu am euh, album mais euh, incha allah ñu ngi ci liggéey bi maag sama doom day mm-hmm. xam naa ni incha allah bientôt di ngeen ci gis dara mais pourtant dama lay dama lay gis nga ci document yi nga ma envoyé benn boo xam ne concert la boo leen demee concert yan ngeen di woy kan waaw bon mooy li ma la wax rek xam nga xam nga doo doo doo doo doo doo bàyyi saa su ne euh, saa yoo amee combat rek nga ne da ngay da ngay entraîné. Hmm. Ah, da ngeen ciy nekk def entraînement continuel voilà voilà dañ ciy nekk tout le temps. Hmm. tey maak moom ñoo dëkk day yor gitaaram. Euh, bon man mu nekk si suuf ma mu nekk ci kaw muy guitare. Euh, inspiration bi di ñëw waaw noonu la noonu la c'est naturel. Hmm. ni ñu ñëwee fii di ngeen ñu gisee nii c'est naturel. waaw doo guitare tuuti mu woy on va vous dañ leen di dañ leen di déglu. comme waaw bon en comme que ni ngeen di comme que ñu bëri nag dañuy foog ne bon. pulaar bi rek laa mënee. Uh-huh. donc il faut cette fois-ci ma rendre hommage mon père euh, Youssou Ndour. Uh-huh. donc euh, benn affaire boo xam ne dama ko dama ko répété ak sama waay ji euh, ñu ñëw fii ñu bëgg leen ko présenter. ayca kon ñu déglu leen kan Diallo. ba jàll danga naan la gën a seddaay bi tàngaay bi ko gëj a gis ko xaar tàngaay bi bu tàmbalee ñëpp a ngi ci tali bi ak tàngaay bi dafa mel ni bu ci xas yëg si ba jàll danga naan moo la sedd bi ak bi dafa mel ni bu ci xas yëg si ba jàll danga naan moo la gën bi tàngaay bi bu sedd bee ñëpp la lu ci kër yi ñu di waxtaan moo ci mbëggeel ci néeg yi yàkkamti nen guddi ba dem fatu ji mbàjj guddi suñu jàkkaarloo te léegi Majaale li sedd bi yegg si na ana nga ne lan danga itam tàbbi na ana ki feemam wow wow wow wow wow wow Majaale bu sedd jotee bu la neexee nga nëbal ni am ci <laughs> parce que ndox bi day sedd fajar gi ba doo bëgg a sangu <laughs> ci Pël dégg ngeen li mu woowee. ak ni mu ni mu ni mu njoolee foofu noonu ça se euh, se voit que talent rek moo wóor quoi. Mm-hmm. il faut avoir du talent dans la vie boo amee talent. Euh, defe naa da ngay gëm sa bopp en tout cas nous nous sommes fiers xam nañ sa bopp euh, defe naa homme de culture la boo xamante ni en plus d' être nekkoon wëllëre Baaba Maal Sénégal yëpp fonkon ko lool lool lool lool lool comme on dit souvent bu dellu si waatoon doo defaraat sa toogaay. certainement de projets on en parle bu ca